fan yi nga xam ni moom la ñuy traversé yaakaar naa ni sénégalais yëpp ku ko wax ku ko waxul ñoom ñëpp tey rawat na ñi nga xam nag tàmmoon nañu dem màkk at mu jot euh, seen xel tey mi ngi baytilal xaram waaye seen xel mi ngi précisément ci bisu tey bii nga xam ni moom la ñu tuddee yow mu tarwiya mooy huitième jour ci euh, weeru aj nga xam ni suba mooy yow ma arafa ak li ci suñu borom dëxëñ ci ay xéewal ak i xar baax dëxañ ko ci ay melokaan yoo xam ne jullit yi moom la ñu war a melowoo waaye bis bis bi nga xam ne moo ci tegu nag di yowmal xajil akbar nga xam ni ñeenti ci farata yi nga xam ni moom bu ko nit ki deful jullit bi bu ko deful ca màkka dañuy jàpp ni ajam matul ñeenti lettre alphabétique rek laa lay wax yoo xam ni ala kulli xaalin jullit bi bu demee màkkatal mu karama donte day jaar Madinatu Munawwara ndax ñun Sénégal dañu am chance chance bi am moy nek invité yàlla suñu borom subhanahu wa taala mais ñu am suñu chef de protocole bo xamni ci mom lay ñu jaar ziyaara ko muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam li xew Medine yëpp ci mazarat yi digënté Quba digënté Qiblatayni digënté Uhud digënté Baqiya digënté ziyaara rawdu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam limi for for for bour bokul ci ajmaka bi sénégalais wala julit ku ci dem da nga nan li ngay jital moy bay tàggoo sen bok sax da naan maa ngi dem ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jar naa ziyaare ndax li mu wax ni man zaarani baada mawti fa kaman zaarani fi hayati rasulullahi nee na képp koo xam ne nii en deux mille dix neuf wala incha allah deux mille vingt et un yàlla ñaan yàlla jàmm aj gi am képp koo xam ne ñëw nga ci sama rawdu bi dafa mel ni avant six cent trente deux muy laq moom jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekk mu toog saxaaba yi fekk mu toog ak jullit yi ak communauté musulmane bi. nga ñëw jox ko loxo niko assalamu alayka ya rasulullah mom ci jëmam ak ci ruham ak ci yaramam ak ci sagom mu delo la nuyoo mom yentibi sallallahu alayhi wasallam kon lolu jarna ziaré jarna ziaré ndax itam mang koy wax barki dem rek sama ben nit niko ko nañu fàttali jullit yi ni len li nga xamni sallallahu alayhi wasallam waxnako ci ma bayna bayti wa min bari di rawdatun min riyadil jannati fofu nee c'est l'un des jardins les plus prestigieux du paradis nee na képp koo xam ne tey boo nekkoon sax géomètre exemple di natt àdduna di natt ba egsi ci fi nga xam ni mooy diggante minbar bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taxaw di jiite julit ñi ak diggante tey rawdu bi fi nga xam ne lañ ko denc depuis 632 nee na foofu ku fa taxaw day mel ni dugg nga ci àjjana yi gën a neex ci àjjana yi kon kooku jar naa ziyaare jar naa ziyaare bu fekkee ni benn julli boo fa julli buñ ko nangoo day mel ni da ngaa julli mois de janvier julli mois de février

ملتم نوار زيارة بيجن سنو ميقا موي بي روالي نيال ني غن كوتو دي زول حريفة فوف لن نان تخو داري سنغو داري أرمل داري جولي داري كما سيوخ نك بريتسر ما بيغا خمني موم لغي داوالي سنو ديغن تك سنو بروم دي وخ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ci ngay xam rek yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi nga ko fassé soxol nga tuddu ko salamin ni ko la labayka la sharika laka labayka wuy si naa la te dootuma la bokkaale wuy si parce que yama tan ci milliers de personnes wala millions de personnes yi nga xam ñu nek à travers le monde jox ma billet Makka may ma wergu yaram ngir ma joxe sama juromel pank kon man amatuma sañ-sañ wala may amati ben ingratitude wala ñak reconnaissance pour di la bokkaale foofu ci biiru ali bobu ci nga koy defee mais jarna naa mom sayyidina mohammed Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekkee dañ lay organiser ñetti étape yo xamne dang fay jaar ci Madinatu munawwara benn bi di Quba di benn juma bu mag bo xamne sallallahu alaihi wasallam. julle na fa and ak mbolo tabarakallah nga dem fa and ak ujaaji julli fa fatiha ci premier rakka tek ci qul ya ayyul kafiruna julli sa ñaaro rakka fatiha ak qul wallahu ahad dali genn ñaan fa say ñaan te am nañ bokku nañ ci place yoy may tud ni ñu nek amakinul ijaba day nek ay place yo xamne julit bi warna dal xelam ni fi war fe fee nangu ñaan bokku na ci li tax nga war a ziare mariti mun na war a ginnaaw boo ziare yonent bi sallallahu alayhi wasallam masjid xibla tey ni xam ne foofu jaaju Sénégal yi bu ñu fa eggee dañuy bëgg ndax dañ fa daan julli ñaar rakka ndax mooy benn jàkka boo xam ni euh, li tax ñu tuddee ko xibla ni borom ñaari penku yi xam nga jàkka yi nga gis yëpp ci àdduna benn penku rek lay am mais lu tax ñu ni benn jàkka ñaari penku mooy jullit ñi dañ fa daan julli di jublu Jérusalem waaye rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee day julli tàkkusaan ci weeru Shaaban mu jekki-jekki jublu Jérusalem décret wacc ci mom ñu xamal ko ni ko à partir d'aujourd'hui désormais yow yent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ñu àndal foo wallu wujuhukum shatr al masjid al harama ci julli gogu ci la sallallahu alayhi wa sallam commencé kaaba gi muy baytillah al haram foofu tamit loolu rek jarna tax nit ñi jaar na wala ziyara dem ali def sen prêter serment nag doog a ci Makka ñetti fan yi nga ma laaj ci lay ñewat rek pour wax la ne ñetti fan yàlla yoo xam day bokku ci wala yàlla la di fukki guddi yoo xam ni euh, ku ne xam na ni ay guddi ngëneel la muy fukki fan yu mu njëkk ci weeru zil xijja muy premier zil xijja waaye boo eggee juróom-ñetti fan bisu tey bi tembe may wax ak yow ci ndakaaru ma nga tombeek foofu ca muna li ñuy tudde ay yamu tashriq mooy fan bi nga xam ni yow mu tarwiya lañ ko tudde ujaaj yëpp pèlerin yi fu ñu mën a nekk ci jóge ci àdduna dañuy bàyyi ko seen hôtel ci mu Mukarrama ñëw dugg ay kaar dem wàcc Mina foofu la ñuy dëkk pour def seen séjour pendant cinq jours danaa la expliquer lu premier jour bi nag mooy nekk tey bu fa nekkee da ngay gis ni tiraay bi sax parce que amatoo yi nga amoon Médina amatoo yi nga amoon Makka da ngay daal di ci ay euh, basang wala ay sijaada wala ay tapis wala ay moquette tawaadu boobu ngay def muy modestie ak humilité boobu ngay am dafa mel ni li mooy li sama Ahmed Tidiane Sy xutbul maktum nettali ni alhajju suuratu yowmi diini fa inna lahum fi hajjihim ayatan jallat sayyidina Cheikh radiyallahu anhu sama turandoo neena aj makka day melni film filmu alaxira bu ñuy ci kaw aduna comme ni nga taxaw yow di film émission bi neena na aj film filmu alaxira la mooy ujaaj bi nga xamni sanguna ali day melni new nam na am comportement new bu sang bopam bu sangoo ba nopi xam nga new buñ ko par lan mo sango armal bi ngay laxase sa bop mo ngi melni da nga sang sa bop bo paré ci ki sangoon boppam sàng boppam ñaar rakka yi ma lay wax moom la julli léegi day mel ni sàng na boppam sàng na boppam jullee na boppam tëraay bi mu tëdd noonu ci suuf nga xam ni naar dem nañ ba saoudien yi bu ñu koy def dañ koy natt ci chibre comme yi nattee bàmmeel noonu lay nattee matelas yi nga xam ni moom la sénégalais bi wala pèlerin adduna bi am droit tëdd ci boo demee mun naa tëraay boobu kon ki sangoon boppam sàngoon boppam julleen boppam rob na boppam ci suuf mooy bisu tey bii day mel ni salle d'attente boo xam ne dañuy xaar suñu borom subhanahu wa taala di lay recevoir mi ngi mel ni tey nga am rendez-vous ak benn kilifa autorité bu mën a administrative ou politique ou religieuse salle d'attente ba ñu lay teg pour nga xaar ko doo gisee kilifa gi mooy bisu tey bii